Euh, ci tolluwaay bi jamono ji corona lu ko waay wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi corona suñu boobu dañoo sàkk sàkk ko mu ñëw ci ndigal luñ ko digal mu def ko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 fi ñu ko gis ba fi ñu ko noppee gis ci loolu rek la nekk kon ñun warul la am jenn xalaat wala jenn tiitaange wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna lu bul xëtteewoo dara lu nekk ci li war a nekk mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci sëriñ si liggéeyal sëriñ bi ni mu ko doon defe diggam ak boroomam diggam ak yonent bi sëriñ bi biñ ko gisee ba fi ñu ko noppee gis tawul fi dara lu boroomam ak yonent bi kon lu mu doyee di doyee doyee lu ñu ñàkk-ñàkk solo war nañoo xam li mu am war nañoo xam li mu fi sëñ bàyyil muy suñu ndono loolu daal lu wéetal yàlla rek sax dàkk si jàmm ko te xamit sëriñ bi fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo mu li mu nekkoon rek ak lu mu jafe-jafe te dooloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu war a fàggul tey ëllëg fàggu ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan ko te juba muy pàggu téeb bi jubóo na ci boromam bu dee ñaan bi borom nangul na ko ko kon kay dara warul lu waxtu wu ne ñuy gën a yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla suñu kem kàttan loolu mooy suñu wartif àdduna euh, moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu ñu nekkee ci leen war a nekk du ñu yëg fitne fitne jenn ju ñu yàgg ju ñu gàttandu du ñu jaaxle ci dara ci mépp mbir kon li ñu li ñu jikk loolu rekk nu jikk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 li ñu jikk te noppal nu te dimb di ñu dimbali mën na musal ci sunu ci ci ci ci ci ci ti ti tiitaange yi moo xam ci àdduna moo xam ci àllaaxira la dara du ci musal loolu nekkal sëñ bi ci bëgg rek sëñ bi moom boolewul ak dara boromam boolewul ak dara yonent bi bu ñu ko gisee ba fi nga noppee gis loolu moom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 doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen borom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkee woon looloo ko fi andi ci loolu rekk la nekkoon kon nag ñun sant rekk la ñu war a def sunu borom bi ñu boole sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne. doon sëkk biir bi tey ëllëg sax ca dàkk nag euh, ñoo ngi euh, jéggalu ñëpp ñu baloo xaq ñëpp di ñaan ñu balante xaqam ñëpp euh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu liggéey buñ ca nekkee ak jëriñoonte rek moo ci juddoo akuk labirante akuk dimbilante loolu rek moo moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne sama bopp mooy moom laa ci jiital ñu jël samay bokk sama bokk yi taalibe sama bokk jullit loolu rek mooy li nga xam ne ah, dara jigunu ci junni àdduna gi waxuma laa dund àllaaxira gi dara la jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi andi mu jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi ñoo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëñ bi eh, tolluwaay bi ñu toll eh, mel na ne tiital na ñëpp waaye dan faaw ñu ñaan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 ñoo ñaan yàlla euh, gën noo gën noo sàmm gën noo aar gën noo musal ci lépp luy loraange musal na ci jëpp jàngoro ju mën a doon rawatina jàngoro yi gan gees ji ñu ngi sant bu baax a baax a baax euh, kàddu yi dem mënta ñàkk waaye eh, suñu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla mm, moo moo moo yombul waaye mel na ni kenn ku ne ci ñun ñu ngi def kem kàttanam waaye nag màggu sunu sunu borom bi mu ne ko sa jox jox ak xam bu xamoon lenn loo xam ne dina ko jox ak ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko junj mooy julli ndax la jiitu ci mu war jaamu war sax ci jaamu ga mu mu mu mu taw mbagg ak bi ca kaw te loolu ci lu rek lañ ko mën a feeñale kon lépp loo xam ne moo ni dimbali ba sunu jaamu ñu jiital ci euh, yëkkati màggu suñu borom bi eelaawu kalimatullahi loolu yaa mu ngi ñaan bu baax a baax boom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 mën na noo am xel sa xel mën na noo daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi euh, sëriñ bi moom li ma wax na rek dañ ko war a jéem xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu ñu ko gën xam di gën di jege